yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina bu ñuy jóg di way sang ko ci kanamam bi nga xamante ni Sénégal dafa tàkk moom dafa yónni sëñ Bass Porokhane mu ñëw ci ñun daan ñuy ñaan dal bim ñu ñaanee dal ñu ne ko ah Mbacke ñun kat waxatuñ duñ def waaye ku nar a def sax dañuy jàkkaarloog yow parce que ñaan nga ñu te booba booba Sénégal yëngu na buñ ci tegoon fan rek dëkk bi tàkk bi ñu ñaanee ñu bàyyi fekk ñu résidence Mamoun ñu bàyyi lépp luñ jàppoon donc loolu buñ ko defalee sëñ Mountakha c'est parce que nag am nañ cër ci moom te suñ kilifa la day xool ay ndaw yoo xamante ni ñiy xeex courant bu cher ceeb bu cher dund bu cher dëkk bi dafa metti justice à deux vitesses da gis ku def dara ñu tëj ñu bañ koo tëj ku deful dara kenn du ko tëj yooyu yëpp bi ñu ko xoolee ñu collectif bi ne dañuy def suñu doxub ñaxtu ñetti yoon mu bañal ñu ko te doxu ñaxtu constitution moo ñu ko may dañuy déclaré moom en mille 2011 danaan dem di def doxu ñaxtu te kenn daal gu téye donc man je pense que loolu la ñu wax ak xalif bi bi aussi sant ñu gërëm gën ñoo ñaanaat nañu bëggul déggu yëngu-yëngu ci dëkk bi bëggul dégg lu jàmm ci dëkk bi ñun ñu mayaat ko ko waaye rek di fàttali ne ceeb bi seer na dund bi seer na dundin gi metti na justice bi day dox à deux vitesses ku def dara ku deful dara mën nañ koo tëj ay at yu bare ku def dara nekk ci dëkk bi di taxawaal loolu fii ak mi ngi am rek yëngu-yëngu dañu jàpp ne mënuñoo ñàkk loolu nag moo taxoon collectif bi ñëw siyaar sëñ bi delloo ko njukkalam wax ko ni suñu kilifa la ba pare comme ni ñëpp di ñëwee ci màggal gi ñu ñëwee ko war ne bis bii bisu Afrique la bisub àdduna la biñ jugee ci moom nag euh, presse bi xaar ñu fii ci biti biñ defee déclaration ba pare lañ ne nañ jàdd euh, gisaale la loolu daal Mbàkke moo doonoon tànk yi xaw ma nag tey damaa war a ñëw en tant ko coordonnateur wala en tant que moom <laughs> xam nga ni sëñ bi nga bi <laughs> mhm, euh, la mhm. bu gëm sëriñ bi ndax mhm. weeru koor wi bis bi mu de maag sëñ Alaaji Buso mi ñoo fa teewal sëñ te yàgg na ko def di sant sëñ Tuubaa sëriñ bi nee fukki at ëpp na ko ngay sant sëriñ Tuubaa te it ku ne xam na màggalu sëñ Abdou Khadre sa taxawaay waaye nag citoyen bu nekk bu bokkee ci réew mi am na droit xool li nga xamante ne nii mu mu mooy droit am mu laaj ko. waaye sëriñ bi ni mu koy bëggee rek mooy mu doon teggin don personnalité doon dignité bañ a offensé kenn ndax moom moo njaboote ñëpp. ndaxte tey jii ñaari nit tey bu ñu jote woon ci réew mi na ñaar ñëpp xam ni njabootu sëñ bi lañ kon doo xam fu muy far mën na mën mën ngeen koo jaaxal waaye bu lépp nekkee ci taalibe ak yar ak teggin rek dangeen koy noppal da ngeen koy dimbali ndax fii la ñëpp di ñëw ok loolu moom muy bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen waa kuréel gi sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo nuyoo muy teg loxo bi ci euh, euh, nuyoo bi ci loxo sëñ Mourtada mi. li nga xam ne ni mu ko waxee ñaari taxawaay la fi taxaw bi jiitu nag mooy boole gi ñu Sëñ Tuubaa boole xam yàgg lool mais mu xam ci yow Pastef xam ci yow ak xam ci gëm li ngay def looloo waral sax. loolu yi moo waral sax. man dama amul maandu ci fànn googu. moom dafa am maandu ci fànn googu. ñu toog. yaa ngi nii toog. xam nga ni mosuma ko cee digal. nee na xam nga ni mosula cee digal. wala ma tere la wala mu tere la ci dara. xam naa ne wóor na ma ne. te wóor ne xam na ni wóor na ko ni. lu ma ko ci waxoon mu def ko. lu mu la ci waxoon rek di ko def. nee la ci ëpp li ñu doon xalaat. mooy war nañoo fexe ba wàññi nit ñi. mooy war nañoo fexe ba wàññi nit ñi. wàññi doomu aadama yi. wàññi doomu aadama yi. ndax bu xoolee nit ñi yokkoo. nee na bu ñu xoolee nit ñi ni ñu yokkoo. te adduna bi dafa limité wu. te adduna bi limité wu. ndax boo génnee suuf si. mais boo génnee suuf si. génne ndox mi. génne ndox mi. génne montagne yi. génne montagne yi. génne fi ñu mënta dëkkee. génne li nga xam ne mënuñu koo dëkkee. li nit ñi mën a dëkkee dafa limité wu. nit ñi mën a dëkkee dafa limité wu kon ñoom ñu xalaat ne. léegi kon ñu xalaat ne. faaw doomu aadama. faaw doomu aadama. seet nu muy seet ba wàññi ak njuróom. fay xool nu ñuy def ba ñu wàññi ak njuróom. ñu wax ne nit ñi ni ñu yokkoo. ñu wax ne nit ñi ni ñu yokkoo. économie bi yokkoo économie bi yokkoo noonu. loolu yëpp ay xalaat la. loolu yëpp ay xalaat la rek. waaye xalaat yooyu yëpp. waaye xalaat yooyu yëpp nag. am na ci yoo xam ne léegi mu jege junniyaat. Ah, li am na yoo xam ne léegi mu jege junniyaat. ku mel ne maan yi. ku mel ne maan yi. Serigne Touba cité na ko. Serigne Touba sax cité na ko. ci ay mbind ndax fi muy waxee ci diggante xeex ndax fi muy waxee ci diggante xeex. bi am ci diggante mbaax. bi am ci diggante mbaax ak mbon. am na lu ko sëriñ bi tontu. waaye li ci am solo. waaye li ci sëriñ solo. xalaat yi li muy jub jub. xalaat yi li muy jub jub. xel moom lu mu jub jub jub. wax sa xalaat. wax sa xalaat nu may nu déglu wax. bu nekkoon. bu fi junni nit newoon. woon yëkkati mel ni mbir. ñu yëkkati mel mbir. ku nekk na nga ko gisee. ku nekk na ko gisee. te loolu xalaat la. te loolu xalaat la. mën naa baax. man naa baax. mën naa nekk safaan. mën naa ne safaan. waaye la suñu kilifa bu baax ba sëriñ suñu kilifa bu baax ba sëriñ Saliou daan wax xel bu jugee. xel bu jugee. day jaar ci jaww ji. day jaar ci jaww ji. jaar jaar ci géej gi. jaar ci géej gi. mën naa jóge fii dem ba waaye tànk moom bu jugee. caaw yoon nag la yàq. nag bi ne yàlla bindee yàlla suñu borom. ne yàlla suñu borom. moo wax rasulullah salaam nit ñi bañ gëm. maa ikra fi diin. maa ikra. diine amul force. nee na diine moom amul force. coobare la. yaa koy tànn ba mu xool. yaa koy tànn ba mu xool. mu doy la. sa digg sa doom ak borom. nga engagé. askan la askan la. bu engagé ci mbir. sëñ bi ne bu engagé ci mbir. da ko war a sàmm. wala boobaa kon boppam lay nax. wala boobaa boppam lay nax. nee na ci des kon wàllu adduna la. wàllu diine ji nag mooy mbirum Sëñ Tuubaa. loolu nag. nee loolu yi. luñ ci gisu. luñ ci gisu. muy laal yoon luñ ci gisul. luñ ci gisul. mu wute njàngalem sëriñ bi. ñu njàng wuteeg njàngalem sëriñ bi. buñ ci amee xalaat yi. buñ ci amee xalaat yi. dañuy respecté nit ki xalaatam. dañuy respecté nit ki xalaatam. ndax loolu. ndax loolu yii. addunaay doxe noonu. addunaay doxe noonu. te mbirum politique da cee rawat. te ne mbirum politique dafa da cee rawat. koo ci juyal xalaat rek. koo ci juyal xalaat rek. mu doon sab noonu. te jël te jël. politiciens yi fi xëccoo yëpp. les politiciens yi fi xëccoo yëpp. ñu jëkkoon nag ñi fi nekkal ñi ñëw ëllëg waxuma la yàq ñu yàq pas-pas waxuma ne jëriñu yàq pas-pas waaye yéen ñi ci seen biir waaye yéen ñi ci seen biir jëriñ yàq seen diggante jarul yàq seen i diggante ndax fa ñuy jubóo ji ndax fa ñuy jubóo ji ëllëg doo leen ko fekk te ñooñu ñëpp itam rek te ñooñu ñëpp itam seen yitte la ca defarum réew la defarum réew la waaye seen bopp tax kon yéen itam na ngeen am fayda am fulla ak farlu. lépp lu ngeen di def. lépp lu ngeen di def. jiital leen ci pay ak suñu borom. jiital leen ci pay ak suñu borom. ndax àdduna jarul xeexal. ndax lu mu rëy rëy rëy. la sëñ bay jaxate wax rek. boo yilifoon àdduna sépp itam. boo xasee faatu. mel ni mosul faatu. kon li am solo. mooy jiital yéen. la ca des. la la ci sa xelum àdduna jox. dëppoo sa ngëm-ngëm. comme dëppoo sa ngëm-ngëm. loolu nit da caa war a demee jom. dama ci fulla dama ci fulla. te xam ne ku bëgg a sori ci àdduna. te xam ne ku bëgg a sori ci àdduna. du sa digg sa borom. du sa digg sa borom. faaw nga laxasaayoo. faaw nga laxasaayoo yooyu. sëñ Tuubaa kat bëggoon lu yomb. nee na sëñ Tuubaa nag bëggoon lu yomb. bi muy dem ci géej. boobu amoon na daraja ju kawe. boobu amoon na daraja ju kawe. waaye nag bëgg a xeet. waaye bëgg a xeet nit. xeetu rasulullah yi. moo ko loxo taxa loxo saayu. jàmmaarloog noonu yàlla yi. jàmmaarloog noonu yàlla yi. jàmmaarloog ay noonam. jàmmaarloog ki noonam. te doonu toon lu yomb nag. ba am ca ndam. ba am ca ndam. kon nag lu baax. kon lu baax. ku bëgg ku ko bëgg. na nga xam ne. na nga xam ni. yaa bëgg lu jafe. waaye bu résultat ba accès rek. waaye bu résultat ba accès. nga fàttali. nga fàttali yitte àdduna ak alaaxira. yitte àdduna ak alaaxira. moo leen fi indi. moo ba ma fi toogee ba léegi. te nee kenn mosu fi di ko wax yitte alaaxira. kon doyloo gu doyloo Sëriñ Tuubaa a tax. kon doyloo gu bi ëllëg a tax. yitte àdduna yi ma wax nag. mais yitte àdduna moom moomee ak cëram. ak cëru kon lu ma ko ci defloo mu def faaw cant ga daf may wax ne woosu loolu de ne Seex Muntaxa mi tam ñi fi jaar ñëpp foofu lañ ñi fi aw ñëpp faral ne amul kenn koo xam ne amul kenn koo xam ne mos kaa dégg ab président de la république mos kaa dégg président de la république ki fi nekkal Serigne Touba la ki fi nekkal Serigne Touba de waxuma keneen ne waxu keneen ndax ki fi nekkal Serigne Touba moo ñu yóbbaale ndax ki fi nekkal Serigne bi moo ñu yóbbaale ñi fi nekkal Serigne Touba noonu la seen ne ñi fi nekkal Serigne bi moom noonu la seen bëdee duñ waxee bakkan duñ waxee bakkan lépp luñ leen wax lépp lu ñu leen wax. seen jëmm yee tax seen jëmm yee tax. te forcé wul leen ci. te forcé wul leen ci itam. ñaan rek ay def. ku ci am pëseef maye ko baax. ku ci am maye ko baax maye ko baax. ku ci sa pësëf agul foofu. ku sa pësëf agul foofu nag. nga doxee sam xel. nga doxee sam xel. du yàq dara sa digal moom. ndax àdduna boolewu leen ak moom. sëñ bi nee noonu rek la demee. mais ñoom ñoo xam lu ñu xamul. ndax nattuwaay bu ngeen di natt rek. ndax nattuwaay bu ngeen di natt rek. ñooñu ci jiitu. ñooñu ci jiitu. nee na mu baax. ba muy jàppale Senghor. ba muy jàppale Senghor. ay jullit ay jullit a ngi fi. moo xam la tax mu def. moo xam la tax mu def. waaye li si xaar rek. waaye li si xaar. ndax dana woon ku ñëw. ndax dana woon ku ñëw. wax ma ci sama jumaa ji di sama yitte. wax ma ci sama jumaa ji sama yitte. yow laay àndal. Lamine Gueye ñëw. Lamine Gueye ñëw. Cheikh Mouhamed Fall teral ko. Cheikh Mouhamed Fall teral ko. yëkkati alal yëkkati alal teral ko. mu jël. mu jël. ba mu laajal sax li mu àndal. ba mu laajal sax li mu àndal. ba Senghor ñëwee. bi Senghor ñëwee. mu woote waat mu woote waat. teral xaalis yëkkati xaalis jox ko. Senghor nag Senghor nag ko. defaat naa ko addiya. defaat naa ko li may wut de bu ma ko amee. daal di li may wut bu ko amee. naa leen jàppale ci seen juma bi. naa leen jàppale ci seen juma bi. mais ñooñu foofu lañ ne woon. Cheikh Mamadou Fadil. mës ta lekk dërëmu Senghor. mës ta lekk dërëmu Senghor. lu wees moo ko daan dimbali. Abdou Diouf li muy jaxasoo jaxasoo Sëñ Abdou Lahat. Abdou muy jaxasoo jaxasoo Sëñ Abdou lu xóot nekk na foofu. lu xóot ne na foofu. saa su ma saan ñëw. saa su ma saan ñëw. am na addiya ju mu ko daan jox. am na addiya ju mu ko daan jot loolu la Cheikh Abdou Lahat daan dajale. loolu la Sëñ Abdou Lahat daan dajale. bu tabaski jotee. bu tabaski jotee. jënd ci xar. mu jënd ci xar. yéeneewaat leen ko ñoom. yéeneewaat leen ko ñoom. nee na lim lim li ko nguur gi jox te mënu koo téye. te mënu koo denc. nee na la leen di delloowaat. kon ñoom. ko nekkoon dafa sori. fan nekkoon daa sori. nee Serigne Saliou Mbacké. nee Serigne Saliou Mbacké. bi ñu nekkee eh, Serigne Touba. bi ñu nekkee Serigne Touba. addiya yi ko Abdou Diouf njëkk a jox. ko a jox. bi nga xamee ne Sonacos tàkk na. bi nga xamee ne Sonacos tàkk na. lam lam fa njëkkee indi ci njaal ma. lam ca njaal ma. moom la ko yónnee waat. ko yónnee waat. Moussa doomam la la ko téyeloo. bay si nga tàkkee. bay si moom la ko yónnee waat. kon ñoom. nit ñee xam. nit ñee xam. waaye fañ nekk waaye fañ nekk ak ni ñuy waggare yëf si ak ni ñuy waggare yëf sëñ Tuubaa yi ak ni ñu xamee ni mu xóote ak ni ñu xamee ni mu xóote kenn war ta juyoog ñoom sëñ bi ne da leen di dolli rek ngeen xam ngeen dolli expérience ay jàmbaar ngeen ne ab jullit moom daa war am lu mu gëm war a nekk bañkat war di xeexal am réew. war di xeexal am réew. waaye lépp nag na ko teg ci yoon. ak kilifteef ndax kilifteef. dara gënu koo dëgër ci lislaam. dara gënu koo dëgër ci lislaam. ku ko ñàkk nag. ku ko ñàkk nag amatoo kilif. tubaab bi ko ci doon woote lool. tubaab bi doon woote lool. naan liberté. ak démocratie ak démocratie yi ñu yoote. ñoom sax doxaluñu ko. ñoom sax doxaluñu ko. dañoo xaw la leen neex. dëppook seen i xalaat. dëppook seen i xalaat. ñu topp ko ci. ñun nag suñuy ngëm-ngëm. ñun suñuy ngëm-ngëm. suñuy valeur. suñuy valeur. suñu diine. dëppoowut ak loolu. sëñ bi nee nañ jiital kon lii nga xam ni. moo ñu amal njariñ àddina ak alaaxira. luñ ca mën a dolli ca lee nag rafetal ko. amiin amiin ñu may. sëriñ Maodo Cissé gis nañ ko bu pir xaritu amin safar terooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti na sunu deret yëngooti na sunuy sidit yëngooti na bu ñi jóg di way sang be